sëriñ Cheikh Jëmbu Fall xalifatu maam Cheikh Ibrahima waaye nag di siyaare mbokk julli yëpp waaye rawatina mbokki taalibe yi waaye di ci jiital ci nuyoo bi suñu jëwriñ mbakk yu Fay mi nga xam ne moom la sëriñ bi jox ndigal fii ci Masaalikul Jinaan ñu ànd ko ak moom ci liggéey bi mu nekk jàmbaar joo xam ne nag liggéey bi dañ na ci lu ne waaye nag sant yàlla ndax tàmbali mu àgg moo jafe waaye nag sëñ bi dimbali na ko tàmbali ne ba ñu nekk ci ndottal yi yàlla ko àggal jàmm ndax barab bii kat daa bokkoon ci juróomi pàkk yi sëñ Tuubaa ñaanoon boromam avenue Cheikh Amadou Bamba bi moo fi jiitu barab bi barab bi nag ñu ngi ñaanal ñëpp waaye nag di ñaanal Serigne Sidil Muxtaar Mbakke mi tabax jumaa ji waaye nag di ñaanal Cheikh Amadou Layine Baara mi njëkk a xeer wi moom itam ñu ngi koy ñaanal taxawal nag suñu kilifa Serigne Moxtada Amar mi nga xam ne Serigne Mourtala lañ ko tuddee moo ko yar moo ko jàngal lu ne ci moom moo ko ci def mu taxawoo fi waa Darmanko gépp ñëwoon nag doon ziare barab bi di sa xalifa euh, Gadiyel di nit ku baax di suñu kilifa moom lañ taxawal ni moom lañ bëgg jox kàddu gi di wax na na ko ñëpp teewlu ndax kilifa la bisimilah. waaw dama ñëwoon doon visiter Massalikul Jinaan mu nekk loo xam ne yi ci daje yëpp daf ma marqué dama yëg ne barab bi mu ngi tudd awani Cheikh Amadou Bamba eh, ñu ne li ñu fi def lan la jumaa la ñu ne jumaa ji ni mu tudd ñu ne Masalikul Jinaan bu ñu jëlee nag barab bu tudd Cheikh Amadou bàmba tabax fa jumaa jumaa ji tudd Masalikul Jinaan Masalikul Jinaan mooy lan waayu aljanna kon jaar yooyu soo ko méngalee kiimaan gu rëy la goo xam ne jëfu suñu boroom amul tànd lu yàlla wàcc la mu daje ci dëkk bi mu nekk loo xam ne mas naa ci wax Cheikh Sidil Mokhtar radiyallahu anhu ne ko yàlla def laa sagal mu ne ma lu ma sagale ma ne ko dafa am barab boo xam ne ma nga ca ndakaaroo ndax yow say jëf dafa nekk jëf yu nga xam ni eh, da nga ñëw ci jamono joo xam ne wax dafa xew yow nga ñëw indi noppi te wax wax la noppi wax la ma ne ko sag bi nag bi ma ci mën a tudd tey mooy wax naa la ni la ku dugg ndakaaru danga séen ay manaara yu taxaw te manaara yooyu dañuy wax manaara yooyu ñu wax nag ku leen seen te ñëw ci réew mi danga laaj ba xam leelu bu ñooy la masalikul jinaan taabi ali tariqal muridiyya ci tariqal muridiyya la bokk loola ku fa yam ku ko gis bëgg naa ziyaare xalif général de murid bu ko mënee moo ko gënal bu ko mënul bu yemee ci danaa jumaa ja dana ca xame lu bari ci biir yoonu murid waaye may ndokkeel umma islamiye bi yëpp di ndokkeel itam euh, euh, Cheikh Mouhamadul Muntaqa Eh, yal na yàlla dolli ko leer ak jëwri ñi mu ko seqeyoon waaye maa ngi tudd xaaj mbakk yu fay mhm. ndax dama ko déglu barki démb Jibril Daw di ko interview di waxtaan ak moom ma dégg mu wax ko laaj ko ne ko waaw li nga def ci jumaa ji ak ni nga ko ci defee mu ne ko jumaa ji sëñ bi moo def lépp ndax man lu ma ci def sëñ bi laa koy jox mu def ko ci jumaa ji mhm. eh, mu ne ko waaw loo déggee ñi daan wax waxtu wu ne di la attaqué ak di la wax lu nekk mu ne loolee lépp dégg naa ci ne lu ma waaye doon wax bëgg mu baax a tax waaye bu ñu xamee ne baax na jox ji jeex na mhm. ma won ko ni ko ku fi mas a liggéeyal yàlla ku nekk mhm. la ngay def fokk kàddu yi demee noonu dugg ci mhm. waaye ndax sëriñ Fadilu radiallahu anhu sama benn xarit euh, Mahmadul Bachir Kunta Muhyiddin moo ma nettali ne ma dafa am benn bis benn jëwriñ bu nekkoon ci Ndakaaru di laaj àllarba bay am délégation bu dem ci Cheikh Mouhamadul Fadal ne ko eh, yëg nga ne diw de ma nga ca ndakaaru nga teg ko fa waaye luñ ko jox rek mu lekk ko suñ fal ne ko noonu la demee mu ne ko waaw mu ne ko bu àllarba dinaa jiw di ñu fekk ma Touba ma ak ñoom ci loolu daal di nee na Bachir nee na mu ne ma Bachiru nag ma indil rajo bi ma indil rajo bi teg nee na ju ñoom ñëpp ñi toog nee na Cheikh Mamadou Fadal ne ma Bachir këf kii lu ma lu ma ci wax dana ko waxaat mu ne waaw mu ne ko yow mal xiyam lu wax danga ko waxaat mu ne leen dafa am ñu ñëwoon fii de ne ma jëwriñ sàngam de luñ ko jox da koo lekk te ma ko wax a ngi ci biir mbooloo mi nee na ñu ne teg ba mu yàgg nee na sëñ neen waaw eh, yéen dama ko woo ba ñëw ma doon ko jambaloog lem mu jambal ma lem gi ba lem gi noppi mu ne ma solal ma ko ci butéel yëpp ma solal ko ko ci butéel yëpp mu solal ma ko ci butéel yëpp rangaleel ma ko teg ko ci sama kanam ba mu noppee nag di dem mu bëgg mar ay loxoom ñu ne ko doo ko mar da nga koy raxas da ngeen a soxor da ngeen a iñaan mu ne nee na ba ñu ko jambee ba noppi nee na jambal ma lem gi defal ma ko ci butéel yi ba mu noppee nag ma ne ko jërëjëf mu bëgg mar loxoom ñu ne ko doo ko mar da koy raxas da ngeen a soxor kon da ngeen iñaan nu muy def bu ko marut da koy raxas kon mooy wan la ne liggéeyal sëñ tubaal lu ci waay def da nga ca am lu ko ëpp mhm. da nga ca am lu ko am lu ci ëpp nag mooy barkeb sëñ Tuubaa moo ëpp jumaa ji moo ëpp yoon wi moo ëpp lépp mhm. te barkeb sëñ Tuubaa bi lu ko ci waay defal danga am lu ko ëpp parce que ña liggéeyoon demb xam nañ ci dara te li mu nu tey la mu jox ëllëg moo ko ëpp waaye nag coow loo dégg ci biir yoonu murit ak kër-kër ji itam bëgg mu jag la rek waaye bu jagee kenn dootu wax kon ñu ngi doog xaaji Bakki Faye asalaamaaleykum wa rahmatullah